ñu leen di nuyuwaat rek beneen yoon euh, di leen dalal ci seen émission sociétale euh, li ci penc mi euh, tey nag ñu fas yéene dalal ci suñu waxtaan Ami Collé Ndiaye moom diplômé la en journalisme et communication chargé de communication à l'Office national de formation professionnelle ONFP nekkit présidente bu association sportive culturelle pour le développement Euh, de Gamboul nekk foofu ci dëkk bu ñuy wax euh, gambul wante itam Ibrahima Fall moom diplômé la en comptabilité gestion des entreprises nekk formateur nekk consultant facilitateur en stratégie d'insertion socio-professionnelle nekkit conseiller ci maire bu Fatick euh, en charge de la formation professionnelle ak ñoom ñu fas yéene waxtaan rek ci li nga xam ne moom mooy xëyu ndaw yi ak lépp loo xam ne daal da koy wundu xanaa rek ma def honneur aux femmes di njëkkee ci ki nga xam ne moom mooy euh, Ami Collé Ndiaye di la bàyyi nga nuyante ak mbokk internet yi. merci beaucoup Ndof maa ngi fay sa nuyoo di la jërëjëfal si dalal bi di nuyu mbokk internet yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan waaye itam di nuyu ki nga xamante ne moom laa bokkal plateau bi mu di Ibrahima. waaw comme Ibrahima moom sax moom it dañ koy bàyyi mu nuyante ak mbokk internet yi. donc euh, salaamaaleykum donc di nuyu ñëpp. di nuyu buur yow mi ñu invité fii ak waa Sene Info mm-hmm. di nuyu tamit suñu xarit ami Ndiaye bu ONFP donc di nuyu mbokk Sénégal yëpp di nuyu tamit fi ma dëkk tamit waa Fatick mm-hmm. nga xam te ne dafa laa bàyyeekoo ñu def si émission sama waa koñ waa Daaru Salaam di ñaanal Sénégal yëpp ci nawet bi mu doon nawetu jàmm mu parce que ndox mi bëri na ndox lu mu bëri bëri la mm-hmm. donc ñu siy pour ñaan rek ndax moom xéewal la ñu siy ñaan mu nekk nawet boo xam ne nii dina sedd guy après ñu am ci ay retombées yu mucc ayib. amin yal na yàlla nangu ñaan yi euh, euh, damay njëkkee rek kon euh, ci ami ci xëy ndaw yi lañuy ñuy waxtaan employés yi jeunes gis nañ ne dafa yàgga doon jafe-jafe boo xam ne daanaka suñu nguur yi fi jaar yëpp à chaque fois jafe-jafe boobu day ñëwaat quoi lan nga yaakaar ne moom moo tax jafe-jafe boobu yàggee noonu ñuy waxtaanee lu am solo may am mbégte di participer ci waxtaan bi si lu ñel li nga xamante ne moom mooy xëy ndaw ñi euh, waaye si loolee lay njëkke parce que nag xëy ndaw bi nga xamante ne moom nga wax dafa am programme boo xamante ne euh, moom la méngoot euh, son excellence monsieur Macky Sall indi ko fi mu di programme boo xamante ne c'est pour répondre aux urgences lu jëm si wàllum xëy ndaw ñi mbirum emploi des jeunes voilà ba loolu moo tax ñu ngi doon liggéey si li nga xamante ne moom mooy le les pôles emploi pôle emploi nag te nekk loo xamante ne euh, nguur gi daf ko fi teg ngir gën a jege population bi ngir tamit joyanti leen wan leen ana naka la ñuy def ba jot si euh, si formation yi nga xamante ne nguur gi mu koy euh, def mu ngi koy amal ngir jeunesse bi mun a tàggatu voilà waaye itam naka la ñuy def ba jot si financement yi ak ñoom seen donc voilà yaa ko évoqué xëy ndaw ñi daal euh, programme boo xamante ni nguur gi moo ko fi teg pour répondre besoin de euh, de l'emploi des jeunes ci ça donc li yaakaar ne moom moo indi euh, jafe-jafe bi mooy demande bi à chaque fois day gën di bari loolu nag c'est tout à fait normal ndax ndaw yi ñu ngi ci école yi di jàng te à chaque fois dañuy génn bu ñu génnee c'est normal ñu def seeni demande d'emploi voilà mais nag li tax mu sooxee mun naa ni Euh, di ko indi mu di li nga xamante ne rek dañ koy xaar ci nguur gi man jàpp naa ne euh, dafa bëri c'est man dama jàpp ne jeunesse bi waratuñu rek toog di di di xaar nguur gi dama jàpp ne li ñu war a def mooy ñu dem ci li nga xamante ne moom mooy entrepreneuriat et euh, nguur gi teg na fi aussi ay plateforme ak i structure yoo xamante ne euh, si loolu la leen di yi xam naa du ñàkk si kanam dinañ si gën a xuus waaye daal jàpp naa ne li tax mbir mi sooxee euh, mooy toog di xaar bi bëri na si waaye itam ñàkk informé wu bi aussi parce que jeunes yu bëri c'est vrai que programme yi am na ñu ngi fi waaye itam ñu bari dañ ko réere donc dina ma neex tey ma participer ci débat parce que xam naa ne dinaa leen mun a joyante ci lu bëri ana lañ la def ba nga xamante ni nañ mën a jot ci formation yi waaye itam dinañ mun a jot euh, ci euh, ci euh, financement yi nga xamante ne am na fii lu si mel ni DER bu ñu fa demee voilà donc orientation yooyu daal xam naa ne dañ ko mën a indi si émission bi ngir ñu mën si jëriñu. dëgg la buñ xuusee ba ci biir xam naa kon euh, dinañ si ñëw euh, Ibrahima même laaj bi rek euh, laa leen laaj ana tey yow lan nga yaakaar ne moo tax emploi des jeunes doon jafe-jafe ci réew Sénégal. waaw xam nga bu ñuy wax emploi des jeunes parce que nit ñi Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne ñëpp dañuy xaar lépp. cest à xam naa peut-être sociologie bi wala ni ñu bindoo moo tax à chaque fois ni problème day am sax ñu pousse ko état question de l'emploi dëgg la état am na ci wàll état am na ci wàll parce que état moom moo war teg les conditions d'obtention d'emploi mais l'état ne donne pas des emplois c'est-à-dire nit ñi foofu la ñuy réeree dañu yaakaar ne état mooy ñëw woola ne la kaay ma jox la état da lay créer conditions yi nga xamante ne yow boo ci tegoo rek yow di nga am emploi mooy li kii doon wax ay mécanisme la yoo xam te ne institutionnel yu fi teg bëri na wax na DER wax na 3FPT wax na wax na wax wax na PAPEJ bëri na bëri na bëri na bëri na depuis que ñu fi nekk ba léegi bëri na ay programme boo xoolee programme yooyu sax dañ leen gën a accéléré à partir du mois de mars bi ñu jógee woon président son excellence Macky Sall doon wax ndaw ñi dégg naa leen xam naa seen bët maintenant damay dem pour trouver ay solution mais Sénégal ak ni bindoo Sénégal ni mu bindoo pourquoi question de l'emploi loolu noonu ça revient à dire ñu wax ci employabilité parce que mënoo wax emploi te waxoo employabilité balaa ngaa ne naam ne fa le problème majeur des Sénégalais mooy est-ce qu'on a des métiers est-ce que réellement on a les compétences qu'il faut pour que ñu mën a dem euh, dans le marché du travail c'est-à-dire quels sont les profils qui sont sur le marché du travail. liggéey dafa am lu jiitu balaa nga dafa am lu jiitu balaa ngaa laaj liggéey. dafa am lu jiitu parce que tey pour ñu jox la liggéey par exemple il faut nga am compétence. il faut nga mën dara il faut ñu tàggat la ci dara mais munoo xëy toog un bon jour ne dama bëgg liggéey te ba pare taamu bi dafa bëri dañuy taamu dañuy taamu te loolu noonu moom mooy indi lépp lépp lépp lépp li waral sooxe bi. c'est-à-dire man pour man nit ki balaa laaj wala nga yëkkati sa loxo day fekk nga mën ko nga am compétence yi nga am aptitude nga am attitude nga nekk fa soo fa nekkee ba pare après nag mën nga dem uti liggéey mais ut liggéey boobu noonu nekkul ne obligatoirement état du Sénégal moo la war a jox liggéey état li mu yor ci liggéey bëriwul boo xoolee tey ñii di yëngu ci Sénégal euh, les fonctionnaires ñi nga xam te ne ñoo nekk dans la fonction publique ñoom bëriwuñ lan moo ko waral Euh, état mënul jël yëpp les entreprises publiques l' administration mënu ko mënu ko boo xoolee la masse salariale temps yëpp dañ fiy dégg ku nekk jóg yëngu boo yokkalee kii kii jóg aalu kii jóg aalu kii jóg aalu donc loolu état munu ko kii il faut que nit ñi buñ jàngee métier ba pare ñu dem ci entrepreneuriat bi ami ko la wax entrepreneuriat bi dem ci auto emploi parce que yooyu ay stratégie d' insertion la mm-hmm. auto emploi la wala emploi salarié emploi salarié mun nga ko am ci public bi maanaam nga dem di liggéey mooy li ñuy wax miin na daan doole nit ñi ñëpp ay min daan doole la parce que képp ku jël sa xam dem di koy wala sa kàttan wala sa doole nga dem di koy jaay fenn pour kii na daan doole la mm-hmm. min na daan doole du aspect péjoratif bi ñuy jàpp mbindaan mbindaan mbindaan mais képp ku xëy yor sa kàttan sa xam-xam nga koy jaay rek min daan doole la mun nga ko jaay état mu jënd ko day yomb mun nga ko jaay les entreprises privées ñi nga xam te ne dañuy demal seen bopp tout comme nag buñ dellu see si auto emploi mun nga yow comme ni ngeen ko defee nii nga dem tijjil sa bopp say fu bopp ngay soox on commence petit pour finir grand parce que entreprise tamit cycle de vie am ak cycle de vie nit ñoo yem da ngay juddu ñu teete la yar la tàggat la teg la ci code ba nga am fenn foofu tu pars de l' activité génératrice de revenu vers nga migrer vers la micro petite entreprise ensuite ngay dem di dem jusqu'à la grande entreprise. maanaam li nga si ñëwaat am na solo ci auto entrepreneuriat boobu maanaam euh, demal sa bopp loolu tam day am solo damay dellusiwaat rek ci nga xam ne moom mooy euh, Amy Ndiaye gis nañ euh, nguur gi dinañ faral di teg ay dinañ faral def ay jéego ba teg def ay démarches. pour ñi nga xam ne ñoom ñooy jeunes yi am liggéey mais terewul dañuy gis ne chaque année Euh, demande bi day am euh, mun wax naa ko sànq da ngay gis chaque plus de trois cent mille dañuy ñëwaat di laajaat euh, li nga xam ne liggéey la te booy xool état bi daanaka benn trente mille peut-être la si jéem la si mën a utal liggéey tey ndax démarche boobu démarche état moo efficace wala nu nu mu demee noonu. en état moom moo efficace xam naa dama leen di ñaax rek si ñu gën a yokk li nga xamante ni ñu ngi koy def ndax am na lu ñu jot a def. donc nit nag bu defee da nga koy jaajëfal si li mu def ba pare doo ko wax ne gënal góor góorlu ndax fas lu mu daw daw nga làbbali ko donc dañ leen di wax ñu gën a góorlu si ndaw yi c'est dëgg la que ni demande bi bari na waaye itam am na ñoo xamante ne jot nañ leen a jël dama leen di dolloowaat rek si li nga xamante ne moom mooy entrepreneuriat man dama jàpp ne dama gëm ne entrepreneuriat moom moo ñu si mën a génne ak it li nga xamante ne moom mooy solidarité c'est ça parce que ndaw yi bëgg nañu entreprendre mais sànq moom dafa wax lu am solo mu ne bala nga ne naam ne fa bala ngaa yëkkati sa loxo dafa fekk nga nekk fa mais ana lan nga fay nekke ndaw bi nga xamante ne bëgg na formation professionnelle waaye amul ay moyens ay waajuram amul koppar pour mun ko fayal mu def formation ndaw bi nga xamante ne tàmbali na yar ay ganaar tàmbalee si yar dugal cinquante ganaar des fois taw fekk ko fa genn wàll gi faatu des fois ngelaw des fois feebari gannaaw ganaar bala moo amaat ay moyens pour commencer waat day xaw a métti certes am na ku mu dendal moo xam bokk na si nguur gi moo xam bokkul si nguur gi li muy xaar waa DER ñëw financé ko si koo xamante ne deux cent cinquante mille la soxla wa il cinquante mille francs pour mu démarrer pourquoi pas yow mi nga xamante ne yaa ngi koy gis muy jóg di daanu comme ni ko kii waxee sànq comme il l'a dit encore ça m'a tellement plu l'expression góor euh, góorgóorlu certes daan doole wala miin allez miin daan doole exactement donc ki nga xamante ne déjà mille na euh, daan doole toogul mu ngi góor góorgóorlu je pense que kooku noonu dimbale ko yomb na c'est ça parce que déjà jógal na boppam demal na boppam lenn la soxla muy ay moyens pourquoi ngay toog di xaar DER di ko financer wala beneen structure man dama jàpp ne yow millions yi nga denc boo si génnee benn rek benn rek boo ko si génnee soxlaam faju aajoom faju donc mbir mi yëpp si dimbalante man laa ko bëgg a tënk ndax kat loolu mooy sama conviction c'est vrai ndaw yi il foog ñu am formation professionnelle ñi xamul ñu xamal leen fan la ñuy jaar surtout aussi ñu communiquer ndaxte Sénégal euh, Dakar ci Sénégal la bokk waaye Dakar du Sénégal li ma bëgg a wax foofu mooy dafa mel ni mbir mi yëpp dañ ko concentré Dakar c'est vrai que ñu ngi wax waxi décentralisation waaye li ñu dajale Ndakaaru moom moo ëpp kenn ndaw yi tamit dañu gis ne ñoom ñëpp dañu daw jooru si Dakar da ngay gis ne sax par exemple am na benn poule emploi bu nekk euh, Ziguinchor mais da ngay gis ne ay ndaw dañuy jóge Ziguinchor ñëw fii jooru si Ndakaaru donc je pense que aspect yooyu yëpp bu ñu ko caytu xam naa ne spécialistes yi ñoom ñooy gën a wu pour wax si waaye li nga xamante ne mën nañu ko see ramasser de manière globale moo di il faut ñu xoolaat mbir yi naka lañ koy doxale waaye itam il faut ñu dawal li nga xamante ne moom mooy la solidarité c'est ça bu ñu gisatee ndaw muy góorgóorlu si dara ñu fekk ko ci dimbale ko bu soxlaa tàggatu ñu tàggat ko jàppale ko ba mu am formation professionnelle ba ñu ñoo tàggatu dañoo xamul fan la ñuy jaar parce que da ngay wax nit ne ko defal formation mu ne aw ma ay moyens samay waajur amuñ ay moyen nga ne leen dem leen par exemple ONFP ngeen déposé fa dañ la naan fan mooy ONFP nga ne war nga ne 3FPT ñu ne la est-ce que dëgg la est-ce que da ngay déposer rek ñu jël la man dama jàpp ne manque de communication am na ci man lool laa loolu loolu laa jàpp quoi benn instant waaye itam ndaw yi aussi comme ni ko kii waxe sànq dafa am ñoo xamante ne intéressé wu ñu lool si li nga xamante ne nguur gi teg na ko fi parce que xëy na li doon am moo tax ñoom lu ñu gis rek lu ñu dégg rek dañuy jàpp ne naxaate la c'est ça na nag naxaate gi dafa bari woon xëy na loolu moo tax lu ñu déggati rek yaakaar ne naxaate la waaye nag li ma leen di wax rek mooy ñu daw seeti xam nañu lañ fay fekk d'abord bala nga naan lii dëgg laam du dëgg demal nga essayé boo déposé benn yoon ñaari yoon bu la neexee nga taxaw fee ne d'accord jàpp naa ne naxaate am na si su boobaa ñu indi ay tontu wax la li tax. da ngay dégg ko naan man de damaa def démarche ba sonn damaa dëgg la des fois procédure yi dina xaw a dina xaw a jël temps dina xaw a sooxalewu mbir mi waaye itam état indi na réponse si loolu loolu moo waral pôle emploi yi ma dellu si wat si si programme yi xëyu ndaw ñi ngir procédure yi gën a gaaw ngir mu am proximité dañu génn fi nga xamante ne moom mooy bérébu liggéeyukaay yi dem fekk leen fi nga xamante ne foofu lañ dëkk pôle emploi yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy les préfets préfectures yi ñoom ñoo koy gérer foofu yi ngay dem nga déposer si euh, si préfecture bu la gën a jege su ko defee dinañ ko dinañ ko jaarale fi mu war a jaar ba structure yi bu ñu dajee si benn pôle emploi parce que kat euh, pôle emploi bu ñu ko déggee mooy maanaam structure yu bëri yoo xamante ne dañoo daje benn bërëb di fa recevoir ay euh, ay ay ay ndaw ak ay jigéen ay góor ak jigéen si durée 72 heures si biir 48 heures yi la ñuy jël ay ay demande la ñuy recevoir ay ay ay demande bu ñu si paree si si euh, soixante-douzième jour bi euh, je ne sais pas. soixante-douzième heure bi si euh, troisième jour bi ñu daal di xool saytu ñi nga xamante ne mën leen leen a jël ñu jël leen mais nag du teye après sa continue mun nga wëyal di déposer ci préfecture yi waaye itam mun nga fekk structure yi nga xamante ne ñoom ñoo fa daje woon ci seeni ay place boo donc yow boo réeree woon ne par exemple ONFP mu ngi former gratuitement ci pole emploi bi bu dee ñëw nga fa seet ci xam la fa xew bu weesoo di nga mën a dem ONFP déposer fa sa sa sa demande de formation professionnel wa ilaa nga dem DER xam naka ngay def ba jot ci formation professionnelle yi sànq li ma doon wax rek ci mbirum entrepreneuriat ndaw boo gis aussi dafa war a am projet amaan na boo mënul sax tëgg projet nga am idée de projet nga xam lan laa bëgg a def qu'est-ce que je faire waaye itam lan laa mun a def bëgg naa def nangam waaye loolee est-ce que am naa capacité pour def ko est que sama niveau toll na foofu sànq lim ni mu ko waxee noonu la dañu toog di xaar nit da koy commencé si lu ndaw ba ba ngay am lu rëy waaye boo bëggee di xeeb liggéey que ne man du ma du ma yenu paani ndox damay toog di xaar ak aussi que ne dama jàng am samay diplôme waruma def leneen lu dul dugg si bureau toog liggéey demeetul noonu jamono dafa changé bu jamono changé da ngay changé da ngay dox ànd ak jamono da ngay gis ne milliardaires yi si yeneen dëkk yi du ay euh, bureaucrate nekkuñ si bureau yi di liggéey ñi nga xamante ne ñoom ñooy entrepreneur yi ñoom ñooy milliardaires yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si bitim réew donc loolu laa bëgg jeunesse bi bàyyi seen xel indi ko si suñu biir réew. Ibrahima euh, donc c' est à dire euh, c' est que pour moom mun a fi mu fi mu fi mu daanalee. Mm-hmm. fa continuer parce que suite logique la c' à dire affaire dafa leer c' est à dire on ne peut pas avoir une entreprise. sans avoir une idée benn ñaar on ne peut pas continuer à rouler dans l'informel pour prétendre ñu am dara parce que tamit l'État aussi qui accompagne quand l'État du Sénégal dem ba renoncer wu a une fiscalité qui était qui était qui qui qui qui, doon dagg entreprise yi mu jël ko ne léegi dama koy jël pour financer la formation professionnelle loolu loolu loolu loolu lu ngand la mais pourtant les gens n'en parlent même pas la CFCE la contribution la charge de l'employeur qui était à hauteur de trente milliards ñu jël ko dugalaat ko dans la formation professionnelle mooy comme mécanisme yi ñu wax c'est-à-dire l'État État chaque jour que Dieu fait mi ngi xalaat di xool nan lay def bay mettre jeunes yi dans d'excellentes condition pour que ñu épanouir. terewul terewul tam di jooy. ñooy wax moom laay ñëw c'est-à-dire l'information. parfois parfois information bi. c'est-à-dire les gens ne vont pas vers la bonne information ñun Sénégal dañuy ñëw toog rek gis ami par exemple fii à Gambour mu jékki-jékki ñëw dawal oto commencé kii ñu yaakaar ne ami elle vient directement du ciel avec son argent et ses biens fàtte nañ sax ami ba muy jaay màngo ba muy taxaw ci arrêt yi ba muy dem di bindu lu projet ñu naan daa bëri problème mu ngay dugg préfecture mu ngay kii mais c'est yooyu les services la sont destinés Euh, exclusivement au usagers à la population c'est pas pour rien ñu tabax ay pôle emploi ay préfecture bàyyi noonu gars yi di xëy dañ leen fa teg pour que population bu ñu ñëwee ñu mun a taataan seen seeni seen seen i mébét pour mun ko mun leen a orienter wala ñu guider leen ba ñu mun a jëmmal li bëgg beneen bi boo xoolee état temps yaa ngi dégg président nee la dafa bëgg tabax quarante cinq centres de formation départementaux dédiés à l'artisanat ñu ngi bëgg a moderniser euh, conseil des ministres bi mujjee passé nafa ne nañ intensifier euh, l'artisanat niñ leen di jàppale ay abda ñoo ñëpp instruire na leen pour ñu jóg nekk ci donc pour dire que ne xam nañ ne notre économie tey ni porte économie c'est le secteur informel maintenant ci biir secteur informel boobu noonu bu ñu buggee am benn euh, développement boo xam te ne c'est soutenu wala ñu am fu ñu jàpp et que ñu mun a créer de la richesse créer des emplois créer de la valeur ajoutée il faut que ñu dem vers la formalisation des des de de de de ces de ces de ces unités de production la c'est des unités de production qui son la parfois qui ne sont même pas déclarées da ngay liggéey wàcc dugal sa poste dem sa yoon amul encadrement amul benn amul benn bët bu ci état bi mën a am te loolu du yoon dama yaakaar ne boo nekkee ci kër nga nekk ci benn affaire di ci yëngu donc war na mun a am information diggante yow ak waa kër gi diggante yow ak borom kër gi pour que mu mun a xam yow ci li nga nekk après bu jaree joyanti borom kër googu foofu ngay jëm mu joyanti la. bu ñu bëri dañuy euh, kaas kaas kaas alors nekkul ci benn droit man je suis jeune man tey bu ma sama parcours man j'ai vendu de la crème glace. man dama jaay j'ai pas honte de le dire je suis fier de le dire et je suis fier jaay naa crème glace man ba jënd glacière autant glacière mu ngi doon jar douze mille francs dama doon dem stade comme ñëpp te pourtant samay waa classe ñu ngi may gis ñu ngi may dégg maak ñoom ñoo bokkoon classe du nilaar du dara du pauvre donc jàngalekat laa sa papa mu ngi doon am wécc tam mais man je me suis dit ne su ma toogee ak xel bi ma yor nii toog di xaar papa jox ma yaay jox ma di dem di lijjanti mun naa dem vers la dérive du yoon waruma Sénégal dañ ñu yaakaar munoo dem ñu jugal la ci école publique nga jàng ba xam yenn affaires yi nga ne yow doon def benn affaire bu ndaw pour sax sa réew dox. tey jii même bu ma ubbee bitig di jaay cela veut dire que ne maa ngi jàppale état bi quelque part parce que les conditions de vie tamit état bi moo ko hmm. mais yow boo ko si jàppalee état da lay gën a encouragé mais ci kaw waxtaan day neex borom kër da dem nga déclaré ji. état bi xam ci loo nekk parce que loolu da lay dimbale ci lu bëri nga formaliser sa entreprise bëri na fi ñu nekk dans le secteur informel di ramasser ay millions ak ay milliards mais ci ñoom la yem c'est c'est les entreprises individuelles communement appelées les entreprises de famille boo demee en Europe dans l'Occident ces entreprises la de famille là tey les grandes entreprises c'est les entreprises de famille ñoom ñoo fi dem pour ne pas faire de la publicité mënoon nañ joxe ay tur sant yooyu yooyu dem tey ay marque ay kii lan la ay tur mais ci kaw dañoo dem yëglu état boole leen ci ay créneau dugal leen ci ay dispositif ñu boole leen nga xam dañuy fi formaliser wu sécuriser wu pour que problème bu amee tey ñu jàppale leen mais tey état bi boo xoolee état dañ koy man man man awma benn problème pour toog wax li nga xamante ne moo am tey état Sénégal boo xoolee si euh, Covid bi état yëkkati na xaalis bu bëri jox ko artisan yi pour dimbale leen xoolul artisan bi déclaré wu ak bi déclaré wu mënoon na ko ci bañ a fekk un pays comme le Sénégal mënoon na ko ci bañ a fekk mais c'était des efforts pour que ñu mun leen a dimbale parce que xam nañ ne période boobu tëj nañ place yi da nga war a jógaat am na ay investissement mais nag ndimbal na ci lox fekk loxol borom Sénégal mënut a continuer noonu mënut a continuer noonu il faut que ñun en retour ñu dimbale état bi ñun ñii di investir ñu dimbale état bi di dem di déclarer wu état bi mun ci for tuuti parce que on n'a pas une éducation fiscale te loolu noonu tey si l'état ne ramasse pas de ressources du mun a continuer à soutenir l'entrepreneuriat à soutenir l'insertion des jeunes les dispositifs seront la lépp dina fi nekk mais tamit ndaw ñi tamit ñoom dafa mel dañuy siisu ba léegi comme terme bi ñuy utiliser waruñ siis wala soit dañuy dem dégg benn information boo xamante ne xamuñ sax nan la ñu ñëw commencé wax tey par exemple DER tudd na ko fi léegi mais DER actuellement avec ton téléphone on te finance mais bu njëkk ba banque nga doon dem mu am ay kii on a dématérialisé la procédure avec les pôles emploi ANPEJ mu ngi fa DER mu fa 3FPT mu fa keneen ak keneen mu ngi fa fa Fatick ngay toog nga dugal sa dossier automatiquement gars yi traité ko comme ni ñu koy waxee automatiquement da ngay toog tu reçois un message wala ñu woola ne la lii débloqué nañ ko man je formateur je forme damay accompagner ay initiative de femmes initiative de développement mais ñoom la plupart ñi may former ñoom ONFP ñoo leen financé xam naa dinañ formation yooyu fi mu nekk nii donc yooyu yëpp am na fi <laughs> yooyu yëpp am na fi mais na gaa yi dem à la recette de ces informations. na gaa yi dem boo toogee ci garab. boo toogee ci garab mango. ga mango bi ñor bay waajalaal sa bopp. Hmm. taxul nga lekk mango. il faut nga witti ko. il faut euh, damay ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy emploi bi rek euh, auto emploi yeeg yooyu dinañ ko santé souvent mais dañuy gis ne. yenn saa yi daanaka mën naa ne ba quatre pour cent ci PME euh, PMI yi yu demee noonu mën nañ ne balaa sax ñuy am at rek da ngay gis ñu commencé am ay gàllankoor ay euh, ay jafe-jafe euh, peut-être financement lay doon wala boo ko amuñu part yi nga xam ne état bi peut-être diggoon na leen ko gannaaw bi ñu leen waxoon nañ ne dinañ leen gannaaw bi ñu leen financé peut dinañ leen jox ay part de marché ak yu demee noonu ba dañuy gis ne seen ay projets yi morne yenn saa yi da am ana tey na lañ mën def ba inverser boobu. nga baal ma Ndof dama bëgg rek dellu si waat d'abord si li nga xamante ne soulevé na ko léegi te benn pàcc ànduma si ak moom lu ñal euh, secteur informel bi dëgg la formalisé wu baax na waaye nag dafa laaj nga tollu à un certain niveau bu ñu fàtte que Sénégal ñi néew doole ñoo fi ëpp ana góor góorlu moo mën di fay euh, impôt comme ni nga ko waxee wa illaa muy participer comme ni nga ko waxee si nguur gi alors que 1000 francs lay am fa muy xëy secteur informel fa ngay fa ngay doore ba ba nga koy mën a formaliser donc loolu dañ leen koy nangul beneen pàcc aussi. mooy war na mën jàppale ñëpp ah formel informel. voilà c'est ça c'est ça. c'est ce donc li ma bëgg wax foofu rek mooy formaliser wu oui. mais dafa laaj niveau il faut nga yegg un certain niveau pour nga mun ko def kii doog a door tàmbalee cinquante mille francs la mu ci am bariwul amaan na vingt mille francs la ci am wa illa benn quinze mille su ko ëppee tamit du bari léegi boo ko bëggee fayloo benn trois mille francs day xaw a ci moom parce que day jàpp ne dépense kër yi donc bàyyi kook moom mu dimbalee ko ba ba muy dépassé wu niveau boobu man jàpp naa ne loolu moo tax. duñu du ñu formaliser wu. beneen bi tamit mooy population bi dafa am benn pàcc boo xamante ne jànguñu jànguñu ke boo waxee formation dañuy tiit parce que dañu yaakaar ne formation ñi nga xamante ne dañoo jàng ñoom ñoo ko moom. je dirais que non parce que am na li ñuy naan la validation de l'expérience acquise ki nga xamante ne góor góorlu la am na am na métier moo xam mécanicien la moo xam leneen la góor góorlu na ca boo am ci expérience jaarul ci école apprenti la ndax amaan na ndóof pour mu am permis day jaar auto école waaye keneen li muy def mooy nekk apprenti bi di ànd ak papam wa ilaa nijaayam ba mun caa am permis donc loolu yëpp ay processus la yoo xamante ne nit mun na cee aw loolu moo tax ñu indi li nga xamante ne moom mooy la validation de l'expérience acquise maintenant ki nga xamante ne am na expérience si mbir pour mu yegg aussi si yenn niveau yi pour mu mun a jot si yenn financement yi pour mu mun a jëriñoo si yenn projet yi pour mu mun a dugg si yenn entreprise yi dafa laaj mu am këyit lijaasa buy wane ne am na benn expérience kooku il faut mu am information que ni dafa war a def formation naka noonu lay am attestation buy wane ne am na tele ou tel expérience. formation bi ku nekk ca la ngay yëngu ku nekk ca la ngay yëngu mën nañ la cee former moo xam artisan la moo xam paysan la moo xam pêcheur demet demet ba mu jeex. donc formation yi du loo xamante ne rek c'est pour les diplômés non artisans yi dañ si am seen wàll ñeneen ak ñeneen aussi am seen wàll waaye fii si suñu réew. boo tuddee formation rek ñu bëri seen fit dafa naan tëf ñu naan man naka laa mën a formé woo kii jàngu ma pourtant jànguloo waaye formé woo nga boo am sa expérience parce que sa métier mën nga ko yaa ngi koy doxal donc li ñu la wax rek mooy nga jéem a am sa boo xamante ne mooy wane ne am nga telle expérience su ko defee mu yombalal la mbir mi nga mun a dugg ci entreprise yi mm-hmm. donc loolu aussi bokk na ci pàcc yi nga xamante ne moom mooy sooxel mbir yi loolu laa bëggoon yokk si ay leeral xam naa danga may relancer waat si question bi ma si. ngay leeral balaa muy dem c'est-à-dire foofu. xam naa ne da ngeen may jégal sax. je je voulais même pas couper. mais ça c' est pour un peu éclairer ou bien repenser mais dire. c'est-à-dire quand je vous dis ñu formaliser wu. c'est-à-dire man damay former man j'ai formé à tous les niveaux. okay. à tous les niveaux j'ai formé des opérateurs des organisations paysannes j'ai forme j'ai formé j'ai formé am j'ai formé ñoo xamante ne faiblement scolarisé ñoo xamante ne musuñ jàng cible yëpp formé naa leen ok c'est-à-dire encadrement la accompagnement te waxuñ la ne juddu tey fay impôt tey boo xoolee état def na ay jéego ci foofu formalisation des entreprises mhm. def na ci ay jéego tey par exemple l'artisan pour avoir la carte carte carte am carte carte artisan tey benn moment ñu ngi ko doon subventionné à cinq mille francs cinq mille francs hmm. la carte devait être à dix mille bu ngeen demee ci chambre de métier yi dina leen wax loolu avec la réforme la des kii parce que ñu am ay cartes yoo xamante ni qui vont leur permettre que tey bu amee accompagnement ñoom ñu ngi ci base de données bi il suffit ñu dem vers ces villages artisanaux là pour que ñu mun leen a jël en charge pour que leen a pour que ñu mun leen a état mi ngi def ay jéego dans ce sens là boo ñëwee dans la fiscalité fiscalité bi c'est selon les type d'entreprise qu'on a parce que tey quand on a une société de capitaux mm-hmm. les déclarations fiscales ne seront pas les mêmes que quand on a une association ou bien on a GIE mm-hmm. GIE bi mun nga opter moo gën a souple moo gën a digeste mun nga opter pour la CGU donc quand tu payes la CGI c'est en fonction du chiffre d'affaires réalisé bu ñu ko calculer ça te fait un versement d'une année jeex na tàkk te l'entrepreneur s'il est bien formé ñu outillé ko en gestion en yenn affaires yenn outils yi il peut lui faire ses déclarations ñun bu jàmm li ma leen di wax lu am la PEJA tey mi ngi fi avec combien de milliards cinq milliards pour les artisans on va former au finish quarante apprentis quarante mille apprentis dans tout le Sénégal te loolu noonu xam la moo ko waral parce que y de des programmes qui étaient si lañ jëlee la validation des acquis de l'expérience bi ngay wax ñu ne gars yi pour ñu def leen ay maîtres artisans pour que ñu mun a utiliser seeni compétences pour que ñu mun leen utiliser parce que on fait de l'approche par les compétences approche par les compétences moo am léegi dans le système avec la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle on est allé vers l'approche par les compétences actuellement ñiy génn tey sax c'est le moment ñu souhaiter leen bon bonne chance nos candidats de la formation professionnelle bu nekkoon CFA e wala BFM ñëpp a ngi ciy waxtaane mais examen CAP mi ngi daw dans la formation professionnelle et que personne n'en parle et que tey c'est du manque communication capital humain voilà donc ñii dama leen di ñaax ñoom ak ñun suñuy patron de la formation professionnelle ñu gën a intensifier la formation comme ni ñu koy def nii il faut multiplier tes sources yi génnaat gën a wax ak ñoom parce que nit ñi bëgg nañ xam mais xamuñ kii détient la vraie information beneen bi tey artisan yooyu noonu noonu noonu maître artisan yooyu ñu jël leen former leen ba mun leen a évaluer sur la base mhm. de l'approche par les ñu ñu certifié leen certificat APC lañ am bëriwul APC Canada nga koy gis Maroc Suisse peut-être mhm. ñooñu ñooy def approche par les compétences c'est-à-dire approche par les dafa simple on s'approche à l'exercice du métier c'est-à-dire formation bi entreprise lay doon ak centre de formation mhm. théorie, pratique. pratique. C'est ce que les Anglais appellent learning by doing. Okay. On apprend en faisant. loolu ci lañ leen di former parce que dañuy jàpp ne waa ji boo ñëwee ci maître artisan bi nga ñëw ne ko on va faire une table peut-être que amoon na méthode yu mu ko doon daggee ñun boo ñëwee fii en miniature lañ lay jox ay schéma ne la lii les dimensions affaires yooyu mais dans la pratique c'est tout autre donc ñooñu il vont guider ils vont conduire gars yi di suivre ñu mën a kii parce que lépp lépp ay critères la yu ñuy teg ay critères de performance n'est-ce pas ay objectifs la ñuy décliner teg leen jusqu'à ce que le produit soit. nga baal ma waaye dafa mel ni loolu moo méngoog li nga xamante ni moom mooy PF2E. mooy e, formation école entreprise. merci école entreprise donc bëri donc état bi man état bi. dafa teg ay mécanisme teg ko teg ko teg ko parce que man je suis dans tous les mécanismes. d'accord nañu si xëy na li nga xamante ne moom moo manqué. teg teg teg euh, mais yàkkamti bu amee loo li nga li li nga Sénégal démarche bi Sénégal communication bi ci war boo Sénégal mooy dëkk boo xamante ne. Sénégal mooy dëkk boo xamante ne dañoo yàkkamti te duñ jël yoon bu baax. déet si Sénégal man ça je dañu yàkkamti te ñu jël yoon bu baax ñun jeune sa conviction c'est-à-dire yoon wi ñu war a jël pour dem c'est-à-dire quand je dois m'informer sur une chose quand je dois avoir la bonne information damay taal sama rajo du ma dem ci ami mën a lu xew tey ci dëkk bi ami mun na ma jox une information biaisée une information erronée damay dem vers le structures la et que ces structures là comme que ñu ngi wàcc di décentraliser ba wàcc ci jege nit ñi tamit gën a intensifier gën densifier la communication c'est-à-dire foofu laay waxe mais état jogul ci teg ay ku dem ba tegal la ministère de la jeunesse ku dem ba tegal la ministre de l'emploi de la formation professionnelle de l'artisanat et de l'apprentissage ku dem ba jëlee ministère bi direction yóbbu ko ministère ku jëlee direction yóbbu ko ministère Sénégal ba 2000 bi Ablaye Wade di ñëw la formation professionnelle direction la woon direction la woon ñu ngi woon fii nii ci wati ambassade Italie. d'accord nañu si état bi def na mu ngi def ay jéego waaye itam il faut aussi ñu wax ko wax dëgg yàlla parce que dañoo war a porter li nga xamante ne moom mooy plaidoirie des jeunes de la jeunesse. Mm-hmm. chômage bi am na kenn mënu ko miin. Mm-hmm. c'est ça ça c'est une réalité dëgg la que ne état def na ay jéego dëgg la que ne am na ay structure yoo xamante ne teg na leen fi waaye nag comme na ma ko waxee woon sànq rek fas lu mu daw daw nga làbbali ko. dafa am lu des lu baree baree bare. Euh, boo gisee aussi ndaw yi di tayal benn instant ci sama mm-hmm. xalaat dama jàpp ne li nga xamante ne moom mooy suivi ak évaluation aussi dafa des ndax xam naa ne bu doon leer ci seeni xel ñuy teg mbir yi ci table yi di ko faram-fàcce ba mu leer naññ buñ ko déggatee am naa yaakaar ne dinañ daw bu dul benn catégorie de personnes boo xamante ne may ma yeggal yi dañoo tayal c'est ça ki di sukkandiku si dégg na wala ilaa est-ce que li gën mooy nga dem vers l'information ki sax nag naataango journaliste yi comme yow ñu ngi def le nécessaire parce que lool moo waral émission bi ku si tayalul bëgg di euh, di dem si li nga xamante ne mooy lu inutile c'est ça diw ak diw ñu ngi xeex lan moo xew fii diw saaga na diw am na ñoo xamante ne information yooyu moo leen intéressé tey bu ñu gisee Ndof muy góorgóorlu di joxe information merci ah, c'est ça euh, voilà ñi nga xamante ne eh, euh, intéressé wuñu si la vraie information bëgg lu yomb li tamit dafa bëri day xaw a métti y a des jeunes qu'on finance et qui ne payent pas lu ngeen wax ci loolu si tu financé et que tu ne rembourses est-ce que ki toog sa wet bëgg a lu mel ni yow est-ce que dina ko cest à problème la plupart des jeunes na ne remboursent pas leur cotisation parce que état bi li lay jox état pour ñëpp la fi nekkal c'est pas parce que man Ibrahima état financé na ma pour ma liggéey rek wala tu ma xalaat sama rakk wala ñeneen ñi nga xam ne dañoo ramoon ak man je dois rembourser liñ ma jox pour que ñu mun see joxaat keneen mu mun a defe li mel ni man mais malheureusement ça il faut oser le dire malheureusement nos jeunes ne remboursent pas xawma ma ndax. na ne rembourse pas. kii les jeunes nga xamante ni moom moo jógee fogole mi war a gàmbul. xamul kenn koo xamante ni nekk na si structure bi nga xamante ni moom moo ko financé ñeme na osé na ñu yëkkati financement jox ko ko mu tëdd si ka fayoo. si xam li ma lay wax dafa am benn pàcc bu koy def te fi ñuy wéeru mooy. xam naa diw a fa nekk ak branlon ah, dañ ko wax te loolu daf ci am loolu moo tax tamit loolu aussi mu sooxe parce que ki nga xamante ne a jege ñu jox ko financement mu ne tey kat fële ne par exemple ndóof moo fa nekk su ma remboursé wul grawul boo remboursé wul keneen bi su jot c'est là waaye ki nga xamante ne mu ngi lay gis xam ne yow remboursé woo ko amoon nga moom aussi bu amee du remboursé loolu nag day tax ndaw yi nga xamante ne bëgg nañu financement di góorgóorlu di liggéey ah. te mérité financement yooyu dañuy ragal parce que dañuy jàpp ne xaw fa ndóof wa ilaa Ibrahima est ce que man su ma demee ma financer. donc loolu moo tax l' information doit doit passer. que ñu xamal nit ñi ne boo lebatee da nga war a fay te séddale gi tamit jaar yoon mu bañ a féete si benn boor amiin xamala xamala moo waral loolu non mbir mi du mbirum politique man damay wax li nga xamante ne moom moo si nekk voilà parce que dama nekk quelque part liggéey que man ma ñemee wax li nga xamante ne moom mooy sama dëgg li si sama dëgg dama koy wax am na lu ci am ñoom la ñuy favoriser moom am na lu ci am je le dis et je l'assume c'est ça séddale gi c'est vrai que ne ki la gën a jege booy séddale amaana doo ko bàyyi waaye itam suuraaleel ki nga xamante ne jegewu la koy war see jot nga fexe ba sa loxo yegg si moom loolu rek laa wax. man gis nga man foofu sax yooyu c'est de critères subjectifs du ma si parce que yàgg na am. lu yàgg am ke baaxul duñ ko dindi dañ koy bàyyi rek parce que yàgg na am. dama lay wax man xam nga man su ma fi toogee du ma wax yooyu man xam nga man je te parle du factuel loo xamante ne xool lépp xamante ni dafay sooxel wàllu emploi et employabilité des jeunes. moo tax ñu laal pàcc yooyu yëpp bu loolu xëy dañu daan dox fii. parce que li ñu débuté li ma commencé mooy indi yi nga xamante ne état moo ko fi teg. foofee laa tàmbalee. Hmm. waaye nag dinañu wax li nga xamante ne aussi moom moo si sooxe. loolu suñu wàll la ami man dama wax nga xamante ne xëy na ma la ko waxee xëy na di nga jàpp ne loolu la c'est-à-dire gis nga quand on forme aussi en entrepreneuriat entrepreneuriat du dañ lay former nii rek nga jóg dem di liggéey nii déedéet dafa bëri ay xeet forme parce que la personne ki ñu war financer d'abord il faut que ñu defal ko développement personnel mu xam mooy kan ak fi muy dugg lan la ak ci li ñu koy dugal lan la c'est-à-dire quand on est dépourvu de compétence entrepreneuriales de compétence socio-émotionnelles mais bu ñu la joxoon sept milliards tamit da nga koy da ngay daanu ah que ce soit xaalisu fonds politique la que ce soit par le portage politique que ce soit ay mécène que ce soit sa leader que ce soit que parce que teguñ leen ci axe teguñ leen ci code man c'est-à-dire foofu laay waxee tey par exemple Sénégal depuis combien de temps mu am conseil national de la jeunesse depuis combien de temps mu am ay association de jeunesse ay mouvement de jeunesse ay yenn yi mais gars parfois dañ fay nekk rek parce que dama nekk ci benn station di gérer avantage yi déedéet on doit y pour servir hmm. tey kii fi mu nekk moom ci dans son domaine ci li muy liggéey war na dem dëkkam moo war njëkk a nekk benn vecteur d'information dëkkam ci laa nekk ba tax ma am fa tey ndomba tànk ma fa am mu di présidente AIC exemple laa joxe voilà mu ngi leer mu leer mu ngi leer mu ngi ngi leer beneen bi hmm. beneen bi tey un jeune quand tu le finances et nga yeewu rek nga jël benn boy asis fay nga ne ko Abdou Aziz mu ñëw nga ne ko non demain da ngay dem fee dinañ la signer benn convention nga ñëw signer ab Aziz il vient avec deux millions il avait un problème iPhone day dem jëndi iPhone jëndi crédit commencé connecté sur quelle base on l'a financé parfois les structures qui finance aussi on de sérieux problème man par exemple dans dans dans le cadre de ma vie professionnelle man quand j'étais dans le nord man foofu géré naa ay projets yu bëri on travaille par exemple les fonds étaient étaient été été étaient étaient été logés dans une mutuelle mm-hmm. ce que j'appelais benn calpe gis nga bi ñu demee di financer c'était avec le SEN 018 ñu dem di financer di financer di financer ba si benn moment mais boo demee suivi sax affaire yi doo fa gis mu leer mais waa ji si boppam mm-hmm. waa ji ci boppam ki géré mutuelle bi ci boppam laa la daa dugg Mauritanie ak xaalis ba y a problème. Ibrahima Ibrahima sànq yaa ngi naan nga financer Aziz Aziz jënd hmm. ko benn iPhone. kon si lan lañ sukkandiku. pour financer Aziz bu doon am na projet. bu doon am na projet ñu tàggat ko. aussi si projet boobu du ko def waaye ki amuy projet ñëw jot si financement kon fan la jaar ba am ci financement donc yaa ngi may fekk si li nga xamante ne maa ngi ko doon wax loolu nag may ma ni doxalin bi ma nga xamante ne wax naan leen nag bi nga le suivi le suivi kan la ñu war a financé kan la ñu war a financé man man j'ai fait par exemple avec le BIT boo xoolee germe dañoo am benn benn label BIT, le Bureau international du travail, un label qui est développé presque dans 152 pays du monde. Hein? Moi, je fais partie des modestes formateurs euh, du BIT, détenteurs de la méthodologie, de la licence BIT, qui forme, n'est-ce pas Gérer mieux votre entreprise. En anglais, on l'appelle Start and Improve Your Business, n'est-ce pas Donc, nous, lan la ñuy gis mooy que ne li nga xamante ne moo fi xew mm-hmm. on est parti d'un constat gis ne il nous faut accompagner les jeunes vers l'insertion mm -hmm. mais insertion bi boo xoolee c'est un process pour nga insérer nit ki nooy def c'est un process mm il faut ñu def benn ce qu'on appelle ABF analyse des besoins de formation mm-hmm. ñu xam analyse des besoins de formation bu ñu koy def c'est en rapport avec le contexte économique local tey boo demee ba Gamboul da xool les activités qui marchent dans Gamboul li nga xamante ne moo mun a porter le développement de Gamboul tu crées de la main d'œuvre par rapport à ma yokkal la si waa Gamboul aussi organiser wu ba pour nga fekk leen fa mun a yomb. merci c'est un exemple am ay association ay GIE demet demet parce que financer groupement groupe de personnes moo gën a yomb nga financer. benn nit am na ci. dafa am solo aussi ndax it nga fekk benn association formé leen. muy gën a yomb aussi nga bëgg a former benn personne individuelle. parce que les formations coûtent cher. loolu am na donc buñ dañuy gis euh, projet bu bu ñu amee projet comme wax sànq. Euh, peut-être bu am at sax anniversaire bi ñëwagul ñu gis ay jafe-jafe commencé am euh, commencé am loolu lan moo koy waral problème financement bi la wala part yi nga xam ne peut-être yenn saa yi état bi waroon na ko jox ci ay projet daf leen ko joxoon wala yu ne mel lan moo waral yenn saa projet tàggatu projet. boo koy amal dafay fekk nga togg ko ba mu ñor doo xëy rek tey ne lii laa bëgg a def nga am financement def ko samp ko day diig day diig dañ ko war a togg ba mu ñor jël li nga xamante ne moom moo ci aajuwu yëpp nga def ko ci su ko defee yaakaar naa ne du doon moor ne comme ni nga ko waxee mais bu dee da ngaa xëy rek am ay moyens samp dara mun na bañ a def ndax projet dafa laaj expérience dafa laaj xam-xam boo ko amul aussi nga uti ko donc dama lay dooloo rek ci formation amaan na bu ñu leen tàggatoon tàggat ba war kon loolu noonu du am je pense que loolu aussi indi na ko ak aussi ñu miser wu ci xaalis rek mbir mi du xaalis rek mbir mi aussi volon volonté la engagement am négation ba pare dara xëyul rek sotti waa gis nga ba pare maa ngi foofu ba mhm. léegi ma ne la ñun Sénégal depuis très longtemps on a un problème de suivi évaluation mm. de nos politiques de nos programmes loolu il faut ñu nangu ko. exact man j'ai la chance de faire un package boo xamante ne ni j'ai été formé jusqu'aux méthodes de suivi évaluation. tey projet mun naa ko taxawal suivre ko évaluer ko mais malheureusement fii loolu du am. parce mhm. que c'est dû à des facteurs endogènes et aussi à des facteurs exogènes. Mhm. duñ ci dugg c'est un autre débat mais man li ma wóor ba wóor tey mooy suñ jëlee nit ñi ñu wax ak ñoom parce que bëgg nañ de. mais dañoo xamul ak kan moo porté message pour wax leen ko parfois le politique il peut venir avec un message biaisé mhm. xaalis baa ngi fi ñëw leen bindu leen ñu jël leen la c'est pour granger un électorat mais il ne rend pas service man parfois il m'arrive je travaille avec des politiciens mais sama vie professionnelle du moo politique parce que loolu laay dundee la politique étant une activité n'est-ce pas J'ai une occupation, en d'autres termes, un métier qu'on m'a confié ou je confie moi-même pour avoir quelque chose pour vivre ou bien pour contribuer au développement de ma localité ou bien mhm. du Sénégal. Ibrahima sànq ci biir wax euh, am na loo junj euh, euh, mille emplois bu juumul ak it ay ay koppar lu toll ci trois cent milliards trois cinq milliards pour moi. est-ce que tey contexte bi ñu nekk jafe-jafe yeeg euh, Covid euh, euh, na changé mbir yi est que tey loolu mën nañ ko gëm ba léegi. si mën nañ ko gëm xam tax parce que le Sénégal jusque-là est un pays résilient su na jaaxal ñu bëri résilience bi Sénégal am di ci profito rek def benn digression boo xam te ne pour jaajëfal son excellence parce que nit moom buy def dara da nga koy jaajëfal parce que mënoon na ko ci bañ a fekk. Covid bi sonal na xam ngeen ne sonal na pays yoo xam te ne ñoo ëpp Sénégal doole si on n'était pas résilient taux de croissance bi dafa naroon gën a yées kon xëy na pourtant ñu ngi la doon wax ne après Covid bi ñu bëri duñ fayekoot sax ñun ñu ngi doon xalaat ne est-ce que dinañ am salaire ñu tëj la tëj la kenn amatul dara mais après au finish résilience su Sénégal. moo waral tey mu continuer et après. ci résilience boo xam ne. xaaral nit njëg yi foofu mun naa ci wax de beneen débat la gis nga man njëg yi tey suñu ma consulté woon pour ñu régler njëg yi parce que suñu jaaykat yi nekk suñ koñ ñoom ñoo ñi nekk ñi dëkkal jaaykat yi ñu dëkkal laala ñoom ñoo ñuy teg coono gi man tey suñ ma laajoon dañuy suprimer le contrôle économique direction du commerce créer ce qu'on appelle la brigade de surveillance économique. nga xamante ne comme nit ñi recruter ay auxiliaires de police ay ASP ay ñooñu ñu bàyyi leen ñuy xëy di dugg dans les localités di dem ci bitik yi di contrôler parce que les gens appliquent des prix yoo xamante ne ni xaw ma fu ñu ko jëlee temps dem naa di jënd xont aliment waa ji si suba dama xëy ñu jënd kilo ripaas bi à trois cent francs le soir may xontaat le gars il m'a trois cent cinquante ma ne ko lu tax mu ne ma guerre Ukraine ma ne ko gis nga guerre bi ngeen di ñaan mu amee fële ñaan leen yàlla ba bu mu yegg si fii yéen xam ngeen luy guerre ba dangeen ngeen di jël di fooye prix yi c' est pas comme ça qu'on applique les prix c' est à dire que dañu sonal nos commerçants là contrôle leen parce que lu ñu soxla ñoom ñoo ñu koy jaay mais tamit dañu war a jàppale te loolu noonu il faut que état bi créer benn brigade de contrôle du commerce intérieur ñu fay dem di saytu bitik yi ñëw suñ ñëwee bitiki ami ne la ami benn juróom laaj ñaata lay jar nga ne juróom ñu ne la foo ko teg andil ay facture kii foo ko ne yow buñ calculer appliquer les prix par produit dinañ mën a gis juróom-ñaar boobu mais gars yi dañuy ñëw seen bic yooyu noonu seen carnet yu ndaw yooyu rëdd appliquer lu la neex tu es obligé d'acheter parce que le Sénégal ne raisonne malheureusement pas en termes de euh, grossiste mais on raisonne en détail nos achats se font en détail dëgg la quelque part di nga mën ne le pouvoir d'achat ne le permet pas quelque il faut qu'il y ait un encadrement dans l'activité économique. On ne peut pas continuer à les laisser. Les transporteurs, ils font de la même chose. Mais quand tout le monde applique des prix, ni le maire à sa guise, sans se fier... Ah, c'est l'État. Ah. c'est l'État man j'appelle l'État à ce que ñu xoolaat moo tax ma ne la suñ ko déglu woon tey dama leen ne pour ce qui est du commerce loolu problème prix la mais tey bu ñu ñëwee ñun ni ñu dundee ni ñuy dundee jooy jàmbat loolu c'est le commun des sénégalais ñun ñoo ñeme jàmbat. te dañu war a sant yàlla flamme des prix yi kenn mënul ne amul. on doit c'est vrai que commerçant yi na lu ñu ci def ay tamit mais euh, mais mais euh, am na fu mu gën a méttee gaa yuuxuwul. dëgg la mën nga yuuxu nga yuuxu d'accord mais Sénégal parfois dañuy yuuxu yuuxu jusqu'à créer une pollution sonore. dañuy yuuxu yuuxu yuuxu bu ñëpp di yuuxandoo kenn du dégg kenn. benn pàcc ñooy yuuxu. xaaral rek xaaral rek. benn pàcc ñooy yuuxu non yuuxu bu ngeen ko waxee kon am na ñuy yuuxu. dëgg la tu me donnes raison boo mu ne benn pàcc ñooy yuuxu. pourquoi l'autre partie n'a pas crié. est-ce que nekkuñu à l'aise non yóbbu mais te nag boo xoolee tey. sikk góorgóorlu yi ëpp. sikki ma la ka doole. mais góorgóorlu ñoom ñoo ëpp. naka ñoom ñooy yuuxu parce que tamit prix yi dañu cher. te amuñu amaana lu ñu ko jëndee loolu moo waral ñuy yuuxu. naka jeex flamme des prix lu am la. dëgg la que ne commerçant yi ñu ngi yokk prix yi. si koñeet mais comparé comparé waaye tamit loolu aussi état moom moo war a xool def. pour mun mais comparer certains prix comparer certains prix qui sont pratiqués e ici et d'autres prix qui sont pas pratiqués ailleurs fee la gën a méttee fa la gën a chéré ceeb ak diwlin bi ñuy wax fii ah, fii la gën a yombee que boo demee ay France ak ay bokkuñu revenu bu ñu fii on parle de chômage on parle de l'emploi et l'employabilité des jeunes donc bu si yokkum prix yi bëggee yokk day gën a métti voilà mais yuuxu bi tey par exemple ma xëy aw ma xëy aw ma xëy aw ma xëy ah. benn jour ah. quelqu'un m'a dit mais grand yéen da ngeen di formé nii rek affaire yooyu noonu man dama bëgg a liggéey affaire yooyu noonu xam nga waaye xam nga defal dara mm-hmm. mën na defal dara mu ne ma waaw mën na ko def dara comment mu ne ma non man daal dama bëgg liggéey xam nga il faut que ma am ci lu ma jàpp mën na mu ne ma non man dama jàng bàyyi mën na ko après mu ne ma dem di football mën na mm-hmm. mu ne non léegi magal naa léegi xam nga damay xëy di koy taqale nii quoi parfois nii su amee ku ma dënk benn affaire ma gère affaire man sëñ bi nga liggéey dëgg dëgg dëgg mu ne ma waaw mm-hmm. ma ne ko man de fi ma jaar laa la bëgg wax waaw mu ne ma foo jaar ma ko ah option yi de man def naa ko te dama si am xaalis yàlla def na sixième ba bi may am bac G à Delafosse jógee Fatick ñoo di jàng chaque année man maay inscrire sam bopp man maay am lu ma jënde ay yére nan laa koy jële damay jaay ndox damay jaay crème bi ma demee ba commencé jàngale nekk vacataire jàngalekat ñu may dégg boobu reliquat moo amoon le système de reliquat da ngay fayee ko ba trois mois yi doo ko fay ko mais dañuy am luñ dajale ñu jox la ko su may ñibbi Fatick damay jaar Joal ay jifir jënd dàmba kecax damba géej su ma ñëwee teg su ma ñëwaatee dama koy jaay su ma xëyee qu'est-ce que je faisais je vais au marché fajar ak samay damba ak sama saret booy bi dof na dof na dof na mën na waa baax na rek dem su ma ñëwee gis maire yor sama kayit 32 fois maire ñaata nga kii géej kon kilo ñaata kilo lii kilo lii ma jox leen bind seen tur dem waat sama kër. ba ay 11h midi je passe collecté sama xaalis. dama la si appuyer si loolu nga wax. si góorgóorlu bi ak xam nga lan euh, Ibrahima mu ma xool su ma ko def. tëdd ci tali bi malien jaar sama kaw. moom ma ne donc li ma si bëgg a yokk mooy fii ndaw ñi dañu am complexe. que je vous en li nga voilà d' donc li ma bëgg a wax mooy fii ndaw ñi dañu am complexe pour am yenn liggéey yi li ngay wax nii man dal na ma bi nga xamante ne moom laa ëmb sama doom bi mujj nekk gàmbul. mu leer ma ne mënatuma xëy di wàcc di yéeg parce que boobu maa ngi ci journalisme bi dama dem gàmbul li nga doon wax nii moom nga doon def man moom laa doon def dama doon jaay crème chakri nga lax et mais lan la dañoo wax dama dof parce que elle est titulaire de master 2 xoolal damay romb ñu naan master la am nii de yow nga am master di jaay crème journaliste di jaay crème mais man li ma gisoon mooy bañ a toog liggéey puisque mun naa loolu ke mënatuma yéeg bëgg wàcc bi ma ne pourquoi pas ma def na en attendant donc jeunes yi foofu la ñu war a inspiré woo xam ne wax dëgg yàlla ndimbal na ca fekk loxoy borom ki neex a dimbale mooy ki nga xamante ne tàmbali na ki nga xamante ne commencé na ki nga xamante ne wax yàlla am na volonté te mu ci li nga xamante ne euh, moom la ko yàlla dënk maanaam si niveau bi nga xamante ne moom la toll booba muy yéeg beneen niveau li may daaneel rek mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorité yi mu di autorité étatique politique voilà euh, religieuse euh, les autorités administratives autorité bu di doon ñu gestu ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw ñi ñoom ñooy jigéen ñi ku si góorlu te soxla financement dama koy waxaat ñu dawal li nga xamante ne moom mooy yërmaane ak solidarité bur xaar nga xam nit mun ko dimbale pour nga dimbale ko si gox yeeg goxaan yi bu ñu jàppalantee yaakaar naa ne mbir mi dina dem ndax gox boo gis ak goxaat boo gis am na fa koo xamante ne moo fa tane donc millions yi ñu denc si compte nañ ko génne dimbalee ko doomi aadama yi da gis ku la tontu ne la ba may sonn gisuma woon kenn ku ma dimbale buñ jàppee noonu rek day xaw a metti naa ko bàyyi mu góorgóorlu góorgóorlu d'abord waaye mu ngi góorgóorlu ba mun a yor glacière di jaay crème ngelaw waaye dënal ko frigo doolele ko ko ngelawaay yëkkatil benn deux cent cinquante mille doolele ko ko ëllëg mun na jëriñ sa sët parce que tey yow la waaye ëllëg sa morom lay doon kenn xamul ki nga xamante ne yaa ko servir tey yaa ko dimbale ba mu am place ëllëg mun na dimbale sa doom wa ilaa sa sët ba sa sët am place donc nañ ko gisee noonu nañu jàppante noonu ñu dawal li nga xamante ne moom mooy solidarité ci biir entrepreneuriat bi nga xamante ne moom la ñu war a suuxat ngir mu régler li nga xamante ne moom mooy mbégum emploi Euh, des des jeunes mbirum chômage bu ko weesoo nag li may daaneel rek moom mooy formation aussi dafa am solo bu baax a baax ndaw yi nañu daw dem tàggatu gi jërëjëf di nuyoo wala mën naa dellu si si nuyoo di nuyuwaat ñëpp di remercier waa waa Gamboul yëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan. di sant di gërëm ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo ma tabb def ma seen présidente ASC donte jigéen laa donte am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi si dëkk ba ëpp ma expérience fuuf si wàll wi waaye teewul wax dëgg yàlla mën lañu choisir donc man maa ngi leen di jërëjëfal bu baax a baax di leen gërëm di leen yéen ñëpp wax dëgg yàlla bàyyiwuma kenn xam naa ne su ma limee euh, mm-hmm. mun naa am ku ma bàyyi doo juum sax boo limee waaye da ngay bàyyi te bëgguma bàyyi kenn wax dëgg yàlla donc yéen ñëpp yéen a ngi si biir maa leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal di la jaajëfal di jaajëfal nga xamante ne ma. incha allah d' accord. fekk loxol borom man loolu laa gëm loolu laa gëm tu auras beau la personne mais si cette personne la n'a pas des attitudes entrepreneuriales kooku du dem fenn peine perdue la c'est-à-dire il faut qu'on arrête d'aider à outrance am na ñoo jaruñ dimbale. gis nga am na lu nit di wax gis nga nit am na lu muy ngeen jégal ma ci terme bi gis nga fosse septique bant bu ci dugg boo ko laalee xam nga takk na ba pare boo laalee bant bi yow la ngay takk am na ñoom situation boobu lañ toll fi ñu toll dañoo toll ndox ci baat ci situation bi maanaam seen yaram dafa ker dafa dee ci bëgg lu yomb xaaral beneen bi beneen bi mooy euh, que la formation professionnelle dafa baax tey nekkul ne da ngay dem uti ay bac plus nangam nangam nangam soo paree da ngay dem uti waat métier n'est-ce pas heureusement que l'État l'a compris mi ngi teg ay ISEP mi ngi teg ay université de à vocation professionnelle ñu ngi koy am nit ñi nañ bàyyi Dakar ñu dem Sine Saalum université baa nga fa ñu dem jàngi am na ay filières yoo xam xamante ne méngoo naag li nga xamante ne moom mooy doxal gox ba nañ dem ci yooyu nañ dem defi formation professionnelle nañ ñemee sol tenue yi nañ ñemee takk mais ay solu costume cravate c'est bien beau mais ñëpp malheureusement mënuñ fa nekk beneen bi damay wax comme par exemple y a des collectivités yoo xamante ne qui l'ont compris comme par exemple je prends l'exemple de Fatick où on est en de construire un centre de formation municipale à hauteur de six cent millions le maire mu ko fay def le maire Matar Ba loolu noonu c'est-à-dire il est en train d'appuyer la politique de de jeunesse de la formation des jeunes centre bi mu ngi pare xam naa tout récemment gars yi nañ dugg dem jàngi. Mm-hmm. donc loolu pour dimbale ndaw ña maire bu mun a def loolu tamit na def lu mel noonu. parce que le développement incombe aux collectivités territoriales aussi ñoom dañ ci war a am partition bu ngand buñ war a doxal. Mm-hmm. il l'a fait d'autres le feront ainsi de suite xam naa ne ñeneen jiitu nañ ko si mais buñ tax yi initiative yooyu ñu jàppale état parce que l'état ne peut sax. y le chômage la question de l'emploi mu ngi fa loolu mu ngi fi du jeex parce que chaque jour ni ñi de ko et puis le Sénégal est un pays émergent gars yi fi nekk ne ñoo am appétit dañ yaakaar ne mun nañ am lépp mais il faut pas qu'on soit trop exigeant wala bu ñuy exigeant nañu fekk ñu am yenn euh, taxawaay bi beneen bi damay jaajëfal du ma mbër damay jaajëfal di nuyu ñëpp di nuyu waa fatik waa Daaru Salaam bi ma dëkk nest pas di nuyu tamit sama mouvement politique parce que tamit dooy def politique <laughs> je suis le président d'un mouvement ah, politique vision émergence donc dama leen di jaajafal xam naa ne ñu ngi seetaan di jaajëfal waa seen info ci invitation bi ah donc di nuy waa Sénégal di ñaanaat jàmm nest pas di ñaanal Macky Sall parce que mooy borom réew mi yàlla may ko wér ak kàttan ak sago gu mu mun politique bi nga xamante ne moom la teg ci réew mi mu am solo lool ñun ñu yëg ko di ñaanal képp kuy sénégalais ku fi nekk ak ku nekk ci diaspora bi di lay ñaanal yàlla may la mucc ak xéewal parce que ñoom ñëpp dañ leen soxla pour développement Sénégal mm. donc di ñaanal ñëpp di jërëjëfal ñëpp wax ji su amee lu ci baax fa yàlla la bu amee lu ci bon nag ci jëmm yi nga xamante ne dañoo xeeb di ab village boo xam ne kon bu nga nekk foofule ci Kaolack di jaajëfalaat bu baax a baax mbokk internaute yi nga xam ne kon yéen a ñu doon euh, may seen i ak seen i nopp ci émission sociétale penc bi di leen jox rek kon dig daje lu yàggul dara ak yeneen i invité ci yeneen i thèmes yaa ngi merci beaucoup Ndof merci Ndof.